ay fan ci ginnaaw rédaction bu télévision almouridiya leer lool na leen juróomi camion yoo xam ne ay addiya la sëfoon jëm ci xalif général des mourides sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké te ñu téewoon ko ci frontière u Sénégal douane bañ mu tàbbi ci dëkk bi waaye fi mu ne nii nag loolu ak soppeeku am na ci ndax ginnaaw bi duwaan dëgëree ci bañ a joxe autorisation yi tax loolee mën a tàbbi ci biir réew mi ki nga xam ne moo joxe addiya ji dafa delloo camion yi sànq marchandise moomu jëndaat yeneen yoo xamante ni mooy addiye yi nu mel fii ci réewum Sénégal tey altine jii di ñaari fan ci yor avril dëpp fukki fan ak juróom ci yor rajab ci la sëriñ atu Diagne jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah mi nga xam ne nijaay la kii joxe addiye ji di sëriñ Xaadim Gaye jébbal ko sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides mu amoon ci kër sëriñ Touba gi jàkkaarloog jumaa ji ginnaaw sëriñ bi bumu mu lay leerale mbégteem ak itam cantam ci ki nga xam ne moo jëf-jëf ji ñaanal na ko ak mboole murit yëpp di fàttali ne lu jóge ñaar fukk at a ngi nii addiye yi di jëm ci ku fi mës a toogal Serigne Touba waaye wii moo yoon wu njëkk woo xam ne kilifa yi Sénégal yi dañoo lànk mu tàbbi ci biir réew mi